ndeysaan gaa ñi nga xam ni mbokki jullit yi mbokki taalibe yi alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi buñ sant yàlla julli ci muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sant ñoo ngi santaat yàlla bu wér ci liggéey bu réy bi nga xam ne sëriñ Sidi moo jiite murid na ko bokk baax yii ñu ñëw ci bi fekk ci ci waa dëkk ñu ngi leen di nuyu te di leen dalal jàmm bu baax délégation bi xam ne ki ko jiite mooy sëñ Mbàkke sëñ Modou Mbàkke si ak mboolem ñu baax ñu mu àndal ñëpp waa dëkk bi tàmbale ci imam ratib ak kilifa diine yi ak président daayira yi ak maire bi ñëpp ñi nga àndandoo di békk ci seen yoon bi nga xam ne ñëw nañ ko fii ci dëkk bi di leen xamal ne li ñu fi gis lenn la ci taalibe yi nga xam ne dañoo wakkiirlu jox seen bopp Serigne Touba seen guddeeg seen bëccëg yépp ñu yemale ko ci fas ko ci yéen a yemale noo leen di sant nag ci teew gi ci dinañ xamal ne dëkk bii ay murit ak i taalibe ak i jullit rek ñoo fi nekk kon nag ñëw ngeen seen dëkk ñëw ngeen seen kër ñëw ngeen seen seen yëf ah noo ngi sant nag ginnaaw nag dañoo wax ne dañoo gàttal ñu ngi sant bokk yi bu baax mboolem daayira yi ak taalibe yi ak mboolem maanaam jullit yi nga xam ne def nañ loxo ci teero bi ak ni ñu teeroo kilifa yi noonu leen ciy sant bu baax di sant itam bu baax a baax ci ci mel ni sëñ Modou Mbacke si ak mbooleem ñu mu àndal ndax man nañoo romb dëkk bi rek ne jàll Kousanaar lañ bëgg a jëm waaye nag ginnaaw xam nañ ay ci rek leen tax a leneen taxu leen a kon jaar giñ fi jaar ñoo leen ci sant bu baax di ñaan yàlla bi nga xam ne mooy yor mbir yëpp ci barkeb Serigne Touba yàlla dimbali nu ma màggal gi nga xam ne moom la ñuy waajal mbiram yàlla agale nu ci ci may ci ndam ñu am ci ngërëmal Serigne bi kon lii nga xam ne mooy kaddu yu gàtt yi nga xam dana won dinañ ko jotli dañoo bëgg nag bu ñu noppee ñu yo maanaam doonte ñaari minute la ñu yokk ko monsieur le mair mu waxtaan ak mbooloo mi dalal gan ñi loolu sax ma war na jëkk mhm. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu monsieur le maire jërëjëf Moussa asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu maa ngi nuyu chef de délégation bi nga xam ne moom moo jiite caravane bi baax na baax si maa ngi nuyu mboolem membre délégation bi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak moom ci ci caravane bi di nuyu eh, mboolem eh, taalibe yi nga xam ne ñoom ñoo fi teew jógee ci yeneen gox eh, di nuyu ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam di leen dalal ci jàmm di leen massa coono encore coono bi nga xam ne loolu ngeen jànkuwante depuis ngeen départ ak ñëw fii ki nga xam ne moom ngeen di coonool aussi moom moo ko jar parce que nekk na nit ki nga xam ne kenn mënatu koo démontrer ci bitim réew sax waxatuma la ci biir réew mi kon su fekkente ne ñëw ngeen tey ci caravane bi eh, ngeen baaxee ñu ngeen taxaw fii ak seen caravane ngir ngeen sonnal ki nga xam ne connal na aduna bi yëpp vraiment ñu ngi leen ciy gërëm di leen sant di leen wan suñu mbégte ak suñu yëg eh, bi nga xam ne loolu ngeen ngeen ñu ko def vraiment ñoo ngi leen ciy gërëm. di di leen ci sant eh, ci kaddu yooyu rek moo pour eh, ma bañ a guddal il faut que ma ñëw ko sëñ Moustapha mi nga xam ne moom ngeen jiital moom eh, wax na ma ne kaddu bi benn la woon moom ma ne ko comme que représentant yow yaay représentant bi fii loolu kaddu bi il faut que yow yaa koy mën a jël ak mu mën a mel dëgg la man may maire yi wante sama rôle ak sa rôle yooyu yëpp mën nga ko jouer ci anam yu rafet Eh, ma seedeel leen parce que li occasion la bi nga xamné ne lu jafé jafe eh, sëñ Moustapha Guèye yalla na fi yegg te wér sëñ Moustapha Guèye dafa représenté daayira Mouridina ci biir dëkk bi bi nga xamné manière bi nga xamné ne la gëna a lolu ma seedeel leen di yéen ñi nga xamné ne yéen fi ñëw xam naa ne ci eh, xalif général bi mom mo leen yëkëti il faut que ma bëgg ngeen jottalil ma kaddu boobu parce que vraiment taxaw na fi taxaway bu rafet waxatuma la sax. Euh, dafay taxawal taalu bi mais dafay taxawal mboolem jullit ñi nga xam ne ñëpp ñoom ñoo fi nekk man jàpp naa ne sax moom sëñ Moustapha Gueye mi ngi mel ni man li nekk këram xamu ko xamul lu nekk ci këram guddi ak bëccëg ci mbiru taalibe yi la nekk tous les temps lépp li nga xam ne loolu lay dox loolu li nga xam ne loolu la am yëpp mi ngi dem ci taalibe bi dama dëkk li ma koy wax li malem mooma ci sama diggu mboolu laa ne <laughs> yaakaar naa yenn du ma ko wax fekke noonu

ñu gërëm ko rawatina loolu nawet ci jëm jamono fekk mbir situation baa ngi jafe mu yónniwaat ñu encore fukki tonu ceeb eh, mu ne nañ ko jox miskin yi wax leen nañ ko jox diw mais mu ne nañ ko jox miskin yi te jamono boobu xam nañ mbir mi nu mu nu mu demee kon vraiment bëgg naa ma xamal leen ko eh, ñun de ñoo ngi koy sant mook sëñ Moustapha Guèye ñoo ngi leen di sant vraiment seen morom jafe na te taxawaay bi nga xam ne loolu yaakaar bi nga xam ne seriñ bi teg na ko ci seen kaw matal ñun ci suñu bët matal nañ ko vraiment maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen bismillah ci dëkk bi loolu loo ma waroon a jiitu wante sëriñ Moustapha dama kon sama place yaakaar naa yëpp benn la wasalaam. jërëjëf jërëjëf monsieur le maire. waaw taala wa barakaatu sunu nuyoo ñu ngi koy jiital ci euh, rakku ci am sama di sëriñ sooy bu Mbakke kon sëriñ bi jataay bi yow yaa ko moom te nga xamit bu wóor ne samaam rek la ñuy liggéeyal te ci ndigalu xalif général des mourides Cheikh Mahamadou Basir Mbakke sëñ euh, Basiru Mbakke moom Cheikh Abdoul Khadir ñi nga xam ne moom la xalifa bi dënk lépp loo xam ne aju na ci màggal gi te dënk ko baa tamit mu di ko defal lépp waaye Cheikh Abdou Lahad Mbacké sa mbokk mu Cheikh Gaynde Fatma moom sëriñ Cheikh Mbacké moom Cheikh Moustapha ñu ngi la koy nuyoole ci liggéey bi nga xam ne yàlla jox na ko cër bu mag fii ci Malem Niani fekk nañ fi seexu Serigne Touba bu mag muy Serigne Moustapha Guèye ak mbooloo mi nga xam ne nekk nañ ci gannaawam ci ay daayira ak seexu Serigne Ismaïla Diouf xam naa ko bu baax ak seex yi fi nekk yépp ak maire bi ci seede bu mag bu rëy bii mu def ci Serigne Abdou Samad moom seex Sohaybu ndax wa amma bi nemat rabbika xaadis te loolu alxuraan moo ko wax ku santul nit it doo sant yàlla loolu hadis la kon monsieur le ñu ngi lay gërëm te di la doolee dénkaat taalib yi nga xam ne ñu ngi fi nekk di taalibé Sëriñ Tuubaa waaye di la dénk jullit yépp ndax fii ci Koussa Malem Niani yaay fi nekk ci protocole àdduna première personnalité ñu ngi leen di jotal nuyoo xalif général de Mouride comme ni ma ko waxee woon ma waat ko karawaan bi li ko tax a jóg mooy yaatal ak yàkkali liggéeyu Cheikhul Khadim waaye itam nu waajal màggal gi nga xam ne mooy màggalu Touba ñu fàttali ne karawaan bi liggéeyam dëgg-dëgg mooy li alxuraan waxoon ne jullit yépp nañu nekk benn te bañ a tàqalikoo te moytu mooy ci mooy ci buumu yàlla gi te mooy mooy mooy li yàlla farataal ak li yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ak sunu kilifa yi nga xam ne ñoom lañ doxal suñu diggante ñoom te ñu yaakaar ne ak àllaaxira lañ ñu digal di sant jigéen ñi di sant itam gone yi ndax taxawaay bi rafet na lool te gis nañ fii naruñ fi woon a wàcc dañ bëggoon taxaw ci tali bi rek jàll. ci yeneen barab yi nga xam ne escale lañ ko tuddee waaye boo ñëwee fekk sëriñ Moustapha Guèye sët Cheikh Ahmad Bamba nekk fi sët jawriñ sëñ Ismaïla Diouf ak yeneen cheikh yoo xam ne ñu ngi fi xam naa xawma seen tur waaye maa ngi leen di taxiñ ci ñooñu ci sëtu tubaab yi bi kon fii dafay mel ni waratu gar la pour ñu taxaw fi ñun nag sunu liggéey bi mooy liggéeyu digal rek bëgg-bëggu xalif général de Mouride la sant ko Cheikh Mahmoudul Basir mu sant ko doomam Cheikh Abdoulaat ñun nag ñu santaan ñu bi fonk nañ ko lool journaliste yi ñu àndal war nañoo mat ñeent fukki journaliste ci lépp loo xam ne day bind wala muy filmer wala muy rajo wala muy site internet ak lépp loo xabaar xabaar bu war a tasaaroo ci àdduna bi loolu lépp sëriñ Sidil Moxtaar moo ko santaane ngir yaatal sunu délégation bi biñ koy tànn ci baatu xalif général di murid euh, tànn na ko ci ak taalibe ndax mën a jaxasoo ak nit ñi waaye tànn na ko it ci xam-xam ndax boo demee ci nit ñi nga xam looy wax moo tax ñi nga ànd ak sori xaadi jaxate di mbokkum Cheikh Abdoulaat di mbokkum sëriñ Soyibu di mbokkum sëriñ Saliou Mbacké waaye di mbokkum ñépp di boroom xam-xam bu mag boo xam ne li xam-xam laaj def na ko te mooy maandu te ñu seedeel ko fii ci mbooloo mi te yàlla tax lépp loo xam ne ñu ngi koy jàng ci alquranul karim ci Touba te Touba mooy Sénégal xalif bi moom la koy wax mu tasaare ko moom ci boppam dana def ay tournée yoo xam ne ci biir Sénégal di seet daara alquran yi ñaata la seet ñu ko jiite te liggéey boobu xalif général moo ko sant ñi nga ànd ak sëriñ Falilou Galas Silla xam naa ñu bari xam nañ ko moom it mu dëkk Mbakol di mbokkum réew mi. soxna may mu seexul xaddim mii ñu tuddee laylatul xadar moom moom ñoo bokk menn maam kooku kon juddoom rëy na lool ci lislaam waaye juddoom rëy na lool ci yoonu murit mu ngi nii ci suñu wetu càmmooy ñu ànd ak sëriñ Falilu si doomi sëriñ Modou Xari si du doomi sëriñ Malick Bassine di nitu yàlla boo xam ne yàlla barkeel na ko ak sëriñ Falilu Cuun di taalibi Cheikh Mouhamadul Fadal Mbàkke deuxième xalifa Cheikh Ahmadou Bamba ak sëriñ Abdoul Xaadir kooku sama doom la ak presse bi yëpp nag dafa li ñuy wax calendrier dafa xat waaye fii jaadu woon na tey ñu yendu fi ndax mobilisation bii ñu fi gis rafet na bu Sëriñ Tuubaa santaane ñuy wër ñu mel ni yéen li ñu gis ni jaadu woon ñu yendu fi waaye Kousanaar ñu ngi ñuy xaar Tamba ñu ngi ñuy xaar ak dëkk yi ne ci diggante bi muy Touba Fall ak Sëñ bu ñu yàlla dimbalee Kousanaar li ñuy añee yendu fa ba xam naa ba ay deux heures demi trois heures ñu konte fa jëm Tamba bu ñu yàlla dimbale ci kàttanu sunu borom subhanahu wa taala dem ba Kédougou kon yow mi nga xam ne yaa fi nekk nekkal fi Serigne Touba di sët si Ahmad Bamba nga ñaanal ñu ñu fas yéene jàll ci liggéey bi nga xam ne sa maam lañ koy liggéeyal te ñun gëm nañ ne yàlla nangu na liggéey bi ndax ñëw maa mi wax sax war ma woon waaye nag ginnaaw dañ ne dëkk yi bokk gan yi dama ci sant yàlla euh, waa kër ñëpp ñu ngi fi. xaalis yaa ngi toog muy waa kër bi ñu wiyee euh, Kemba Camara Chérif Ezra mi ngi toog muy Ibrahima Aydara euh, Sidi Assane Sy ñu ngi fi toog représenté sëñ Assane bu Tiwaawoon. kon donc waa kër Sëñ Touba yëpp ñu ngi koy toog Sëñ Touba yàlla fi yàgg kon nag euh, euh, man de li may mën a wax suma wax du bëri mooy ne damay santat yàlla rek sant yàlla parce que lii euh, suma sa sa maanaam li ma mën a wax ngeen baal ma ak nag sama baay fekkee woo ko sama maam fekkee woo ko man maa ko fekkee damay sant yàlla billahi damay sant yàlla sant Sëñ Touba. billahi dama sant yéen Tuubaa sama maam fekkewu ko sama baay fekkewu ko dama sant yéen Tuubaa yàlla fi yàgg te wér billahi ngeen jégal ma mun ma wax nag heure bii mun ma wax. jërëjëf wala jërëjëf Serigne Birane si kàddu yaram yi nga xamee ni wax na. maa ngi am mbégte bu rëy caravane bi paase fii ci Foussana di gërëm. population commune am na bett bu rëy ci passage caravane bi ci Koufanaar ndaxte dëkk yu bëri remuñu leen ngeen ñëw Koufanaar Koufanaar nag bastion mouridisme la ñu leen ci gërëm di sant di ñaan tam euh, général bi yàlla na fi yàgg te di ñaan

Eh, di leen ñaan nag eh, xam naa ne loolu dana am parce que lii c'est inédit maanaam lu bees la lu baax la bu saanateeru délégation bi man am naa espoir ne eh, bu saanaar fi ak déwén yàlla xew yu bëri dana ñëw fii inshallah ndaxte délégation Serigne Touba fu mu romb surtout ci préparation magal bi ñuy jëm nii man kooku Eh, am naa ci espoir bu rëy eh, maa ngi ñaan tam ngeen ñaanal ñu ñaanal Sénégal dem ci kanam mais ñaanal tam commune bi dem ci kanam ngeen ñaanal ma tam parce que am naa eh, naal bu bëri ci Koussanar ndax yàlla jox ma kattan bi di remercier encore une fois délégation bi yëpp di remercier tam sama collègue maire yi fi ñëw dara daka maire Paoskoto mu ngi fii maire Malam ñaan mu ngi ci di remercier tam président conseil départemental parce que am na fi représentant à la personne de Sara euh, Sara Ndiaye kon nag euh, comme ni ñu ko waxee wax mënul gudd euh, vraiment dama am mbégte bu rëy di kontaan te ñaan délégation bi mhm. seen yoon bi gën a neex mhm. seen yoon bi ngi egg jàmm et ñun ci population bi ngeen bàyyi ci itam ngeen bàyyi ci jàpp ngeen ñaanal ñu vraiment lu bëgg yëpp ci Koussanar yàlla may ñu ko di remercier également comité d'organisation naroon naa ko fàtte di ko parce que bi ñu waxee ne caravane bi dafee ñëw fii constamment ma ngi am contact ak ñoom bon mënu ma ci lim day jëng xam ngeen leen en tout cas ma ngi remercier commission euh, comité d'organisation ñi nga xam ne

vraiment euh, am naa mbégte trop comme nu mu dal sama chef de village su ma continuer loolu moo nar a dal tam du ma mën a continuer mhm. ah, nag ma yemale ko fii di leen gërëm vraiment ngeen ñaanal ñu ndax c'est Koussanar euh, nekk vraiment euh, village une ville émergente une commune émergente inchallah voilà merci voilà jërëjëf ak seen kilifa yi fi teew kaddu maa ngi ko yëkkati moo fi nekkal sëñ fii ci Kousanaar ak li ko war ma ne kontaan na ci bés bi bés na ci bés bi ndax lii xéewal la karawaan bi dañ ko daan dégg waaye ren yàlla baaxee ñu ba mu yegg si fii Kousanaar kon xéewal la loo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk mais kontaan na ci loolu bi nga xam ne bii. sëñ Maodo Mbacke kii moo ko jiite jiite karawaan bi ñu leen di dalal ñu leen di sargal ñu leen di ñaanal yàlla ngeen delloo jàmm may wax di yëgal sëñ Maodo Mbacke si ak ñu mu àndal ne ñu ngi leen di gërëm ñu leen di sant ci lii nga xam ne dafa nekk standard lii ngeen gis nag Pastef gone yi la gone yi ñu àndal ñun defuñu dara ñun mag ñii daanaka ñun defuñu dara ñoom daal ñoom ñoo def seen lépp ñu ngi leen di ñaanal te bi ñu ñaan ngeen ñaanal xale ci seen taxawaay taxawaay bi yàgg lool ndax rafet na ñu ngi nuyu tamit kilifa diine yi nga xam ni ñu ci dëkk bi te nga xam ni lépp lu ñu xew na bi seet kii fa mu bokk ak këri fa mu bokk lépp jaxasoo mu nekk benn sëñ Cheikh Ibrahima Aïdara yi ñuy toog sëñ Assane si di sëtu sëñ Babacar si mu ngi fii toog Bié Kemba Bié Kemba Camara xalifa guinéti imam mu ngi fi toog idima Adama Sall mu ngi fi toog boo limee sax jub kon ñii nga xam ne dañ leen yaakaar ñu ñëw bokk ñoom bés bi mënuñu lu mooy seere sëriñ bi ne ay kilifa yu mat kilifa lañ te ñu ngi ànd ak ñun bu rafet maa ngi ñëw appe bi bokk ñoom moom diine waaye lépp lu xew fii moo loxoom ak ci biir teewaayam danañ ko gis maa koy di di ko sargal kontaan nañ bu baax a baax baax a baax maa ngi nuyu suma sëriñ si Moustapha Guèye bu Malam Ñaani ànd ak yéen depuis Malam Ñaani ñoom fii kii di sëñ Moustapha kii di sëñ Basiru Mbacke daanaka ci yoonu murit ñoom ñoo yore lampe torche yi ñooy ñooy jiitu rek ci li ñu topp si ma seere leen loolu jigéen ñi sëñ Malick nee na seen taxawaay gis na mu ngi seere sëñ bi mu ngi seere délégation bi bu ci jigéen àggoon rek daanaka loolu la dafay manqué jigéen ñi ak xale yi loo loo gis bu rafet lu ngeen fi gis ci taxawaay bu rafet ñoom la ñun jëfuñ dara ñu ngi nuyu suñ kilifa yi nga xam ne kilifa diine yi nga xam ne ñu bokk ñoom liggéey bi sous préfet ñu ngi koy nuyu di nuyu monsieur le maire Babacar Ba di nuyu maire yi xam ne yi ñu ngi ci gox goxaan yi ku ñuy wax ndeena bari gis nañ taxawaayam gis nañ loxoom mënoon na ne dëkk mbokk saanaa waaye gis nañ loxoom gis nañ taxawaayam bàyyiwuñ ko Babacar Ba ñuy nuyu Sirman Sall maire Maram gis nañ taxawaayam ci mbir mi bokk naa ñun lépp ñu ngi nuyu maire Koumpentoum Sidi Traoré gis nañ taxawaayam ci mbir mi ñu ngi nuyu euh, Ibrahima gis nañ taxawaayam parce que nit bés la am koo xeebal bésam rek xeeb nga ko koo gis rek bés la am kon na bés bii nga xam ne mooy suñu bés képp koo xam ne ki jàppale nañ ci jàppale bu wóor na wóor ne suñ ko waxee suñ ko waxut dugg nga suñu xol kon nag maire Ndoga Babacar fàtte wuñ ko Omar Deme gis nañ taxawaayam gis nañ loxoom ku lim jiw waaye ma leen biral ne dëkk bi amu ci kenn koo xam ne kii ci kilifa diine yi koo xam ne kii gisuñu loxoom Thierno Alpha Thierno Alpha Diallo dafa wéral yaram dafa sudaate waaye lépp loo xam yoo xam ci yoon la kenn ko ci jiitu ñëwut waaye nag yónnee na fii wan ñu ne moom ñu ñoo bokk bés bi maire ma kii imam Mbale Niani ñu koy nuyu ñu koy gërëm ci teewaayam kon sëriñ bi lii mooy ci kàddu yi nga xam ne yi sëñ Malick jaboon na ma ko nee naa leen ko jottali leen di bu baax ñu leen sati bu baax te nag di leen ñaan nag karawaan bii nag gannaaw mos ngeen yi nii ah bu leen ba bu at mu jot nag léegi sëñ bi dana fi jaar at mu jot ne di nekk wasalaam. tahiyatan zakiyatan طيبة أزفها إليكم يا من حضروا إلى هذه مسيرة التوبابية يا من تحاولون الليل النهار بإيصال المجتمع التلاميذ الشيخ أحمد بن خادم الرسول يا من تحاولون الليل النهار بإيصال المجتمع الإسلامي إلى رقي الحداري نقول لكم مرحبا بكم وسهلا نجدد زيارتنا إلى شيخ الشيوخ عالم العلامة عارف بالله شيخ الخليفة سيدي مختار مكة <laughs> mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen di ziar di magal caravane bi joge Touba caravane bi joge Touba yegg si fii ci Koussanar caravane bi xam leen ne mu ngi ànd ak xalifa général Touba Cheikh Sidi Makhtar Mbacké ndaxte ci ndigalam lañu ne Cheikh Sidi Makhtar mu ngi ci ndigalu maamam kon karawaan bi ànd na ak borom Touba borom Touba lu mu àndal rasulullahi ànd na ci yàlla ànd na ci kon lépp luñ fiy def delluwaat na ci yàlla nee na borom Touba nee ku bugg jege yàlla da ngay bari salaatu ala nabi ak di alxuraan salaatu ala nabi nag ñëpp ñoo ko man Serigne Touba nee na dama salaatu ala nabi ba ràññeetuma xobu weexaayu niin ak safaay suukar loo ko ci jox mu ngir salaatu ala nabi léegi moo saf ci làmmiñ li leneen dootu ci saf bu ñu weesoo loolu sëñ Mbàkke si ak sa délégation yëkkati ngeen raaya l'islam kep kuy jullit tey seetaan téléphone fari kontan nga te yalla yekati yëkkati ngeen l'islam ndax te diine kat dafa ànd ak politique suñ ko waxee dof yi duñ ko mun a dégg bu diine amul woon politique du yegg fii mu yegg ma jox la ci benn misaal yeneen bi nee na su ngeen di julli ji tabaski wala korite dem leen ci yoon bii waaye su ngeen di ñëw jaar leen beneen yoon bi ñu ne ko lu tax mu muuñ Seydina Aliou ne affaire la bu ñu jàppee yoon bii dem tabaski ñi nga xam ne duñu ay jullit dinañ gis jullit yi ñu sangu ba set sanse ay yére ñu ne waaw gis ngeen ñoom diw nuñ fi jaaree tey de dañoo rafet beneen yoon ngeen jaar yoon bale ñeneen ñi jaaruloon foofu jaar yoon boobu lii mooy politique l'islam karawaan bii ku buggul islam sax boo ko seenee da kontaan Karawan bi ku bugul won Serigne Touba sax Serigne Touba dina nek sa xel. karawan bi yengal na senegal yep ñun nakku sanar sant nañ yalla ñu ngi koy sentu ci télé ba mu ne juux suñu kaw sante nañ ko yalla bu baax baax ndaxte man gëm naa ne karawaan bi yalla ànd na ci yonent bi ànd na ci borom Touba ànd na ci xalifa bi ànd na ci ndaxte ci ndigalam ngeen di demee hmm. arab bi nag nee na ki ñu yónni bu yegsee bul xool ci ki ñu yónni waaye xoolal ki yónni ki ñu yónni ki yéen délégation bi yëpp ñu ngi leen di xoolee bëtu Serigne Touba di leen di suñu soxla ci biir ak ci biti luy na ci bi fi tijjaan yaa ngi fi suñu mag sorel wax na ko léegi setu alaaji maal si mu ngi fi laayeen yaa ngi fi ñaseen yaa ngi fi daj abbe yaa ngi fi dajale nañ seen kàddu jox ma ko man mu doyadi bii waaye abbe bi sëriñ bi nee na sànq abe bi bu mu toog ci ginnaaw na ñëw toog fii ci kanam te loolu mooy dëgg dialogue islamo-chrétien dafa yàgg ba yéeféer yi bundu jullit yi julli di dañoo jógee réew Arab saoudite ñëw réew bi ñaan xabash ba ñu yegsee abbe bi ne leen lu tax ngeen ñëw fi ñu ne ñun seeni mbokk lañ abbe bi ne leen ci naka mu ne yonent yàlla isa frère la ci yonent yàlla muhammad ñooñu ñu ne ko da ngeen xam isa faf jullit ñi wax leen ci loo xam ne ne ñoom seen bopp umpale nañ leen kon ba léegi islamo dialogo islamo chrétien boobu sëñ bi mu ngi dox fii ci Koussanar lépp lu ñu xewle bu ñu invité abbé bi mu ñëw abbé bi lu mu xewle bu invité jullit yu ñëw tarixa yëpp yépp ñu ngi fi laayeen yaa ngi fi tijjaan yaa ngi fi mboolem jullit yi lépp lu wër Koussanar dëkk lu mu sori sori bu dee ñaari nit la wala ñetti nit la ñëw nañ pour fekkee karawaan bi seen bi seen ñaan mënul daanu ci suñu kaw seen ñaan mënul ñàkk daanu suñu kaw ñaar ngeen rasulullahi nee na adduwaawu habibu ilal habib mustajaabu sopp nañ leen yéen sopp ngeen ñu ndaxte tànk du dem fu ko neexul kon su ngeen ñu ñaanalee rek yàlla nangu ko ñaanal leen ñu dëkk bi ak tund bi ak réewu senegal yonent bi nee na gan bu ñaanale njaati yi tamit ñaan bi dina nangu dontele amuñu kàttan wala doole matale lu ñu war a matale lépp waaye jàppee leen suñu doyadi ngeen ñaanee leen ngeen ñaanal ñu ci suñu doyati ba yàlla defal ñu xewal gu bari ci barke borom Touba ñu ngi jublu ci màggal Touba yàlla nañu yàlla may fekkee ko ak wér gu yaram jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim naa ne nit bu tedd laa dajel te gën naa di am bànneex ci lislaamu senegaal yàgg naa di ci tiitaru su ma génnee bitim réew dinaa seede ne ci senegaal am na ay confréries yu bari te loolu moo tax lislaamu Sénégal dafa dëggu ndaxte yàlla moo sàkk nit yàlla mooy may ay mbindeefam xam-xam ñu mën a nekk benn di dox ngir yóbbu àdduna si ci yoonu jàmm caravane bi ma dajal tey may na ma jàmm bu bari te may ñaan yàlla caravane bii may jàmm ci Sénégal caravane bii doxam tànkam tànku jàmm la mbooloo mi fi teew ñun ñépp xam nañu àdduna bi bëgg na jàmm te ku koy indil jàmm mooy mbindeef yi rawatina diine yi rawatina kilifa diine yi sama nuyoo mu ngi àgg ci sous-préfet di représenter gouvernement Macky Sall sama nuyoo mu ngi àgg ci suñu maire mi nekk fii bés bu nekk mu ngi liggéey ngir suñu gox dem ci kanam sama nuyoo mu ngi àgg ci kilifa diine nekk fii yépp ci Koussanar ndaxte nyom ak man ño and bes bu nek di ñaan musna wax ci suma ben xibar sama yeneen labé bu ñu ñëw fi mané len luma xam fi ak lima dund sa yu imam yi yuuxoo jolali bi mu ngi teug lolu mu ngi mengo que ñun ñep taxaw nañu suñu gox ngir suñu kusanaa mhm. maa ngi wax ci tuuru monseigneur Jean Noël Diouf mi ma teg fii man mi nekk doomu réew mi doomu gox gi ndaxte Koupantoum la juddoo Koupantoum la yaroo yàgg naa di ñëw ku sanaar xam naa ñu bëri fii fubal naa ak ñoom saa su nekk ma koy fàttali bëgg naa ñun sénégalais dëkk ku sanaa ñu liggéey ngir jàmm sax màgg bee am i doom ndaxte Sénégal ñépp ñu koy gëstu bëgguma lii xew ci biti mu agsi fii te loolu am naa kóolute Uh-huh. du mën a agsi fii uh-huh. ndaxte diine yi confrérie yi bëgg nañu jàmm te jàmm dong moo leen tax a jóg uh-huh. en tout cas sama wax mënuma ko guddal waaye sama xol fees na ma dellu di ko waxaat bi ma joxee sama loxo sëriñ bi di ànd ak yeneen taalibe yi di dox caravane di caravane jàmm maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant voilà merci beaucoup etaan rajim bismillahi rahmani rahim la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim barke borom Tuubaa mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi maa ngi ñaan ñu wax ñun ñëpp alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi ñu wax alhamdulilahi rabbil alamin ñu waxaat alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi yal nañ yàlla fayal sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal nañ yàlla fayal sahabatu rasul yal nañ yàlla fayal cheikhuna ahmadul xadim yàlla na yàlla fayal sunu kilifay diine yi nekk ci senegal Sénégal euh, sëriñ Malick jaw yow mi nga xam ne tey jii jataay bii yaa ko moom ndax ci ndigalul sëriñ tubaa Cheikh Sidi El Mokhtar la ñuy dox te yaa fi yore kàddoom yore fi baatam kon jataay bi sa boso ñoo ngi fab daraja ji la yàlla jox di la ko delloo barke bi la fi yàlla jox ñu di la ko yéene. di nuyu fab nu yoob sëriñ Modou Mbacke si mii di seen mbokk du doomu Saloum di doomi sëriñ Moustapha si waliyu moom sëriñ Malick Bassine si waliyu moom Matar Penda si waliyu moom Tafsir Demba Bunna mu ànd ak sëriñ Xaadi Jaxate mi nga xam ne rabita bi lëkkale jàngalekati alxuraan yi ci Sénégal mooy seen coordinateur ànd ak sëriñ Fallou si di rakkam waaye di bindkat ci yoon bi ànd ak sëriñ Fadilu Cuun di koo xam ne Cheikh Mamadul Fadal Katarbiya boole ko sëriñ Mudu Moustapha Falilu ak seen bokkam taalibi mii toog nuyoo boobu bàyyi ko ci sëriñ Abdul Ahad Gaynde Fatma jaar ci sëriñ Cheikh Mamadul Bachir mi nga xam ne mooy président comité d'organisation Magal Touba bàyyi ko ci sëriñ Touba Cheikh Sidi El Mokhtar nuyoo bi day ñëk jaar ci chef de village bi ndax bo day jaar ci ab sel da ngay tek sa tank ca bant bu ñëk ba di bëgg lool ci bi mu tambalé wax xolam lox mu joy ronkoñ du genn ci ay jaxaan te Cheikh amadou Fadal nee na saxo du mooxi li hubbil fardan araahu nee man tour ay ronkoñ ngir bëgg bëgg nitu yalla muy bëgg ci Ahmed Bamba farata laa ko def di nuyu monsieur le maire ci kàddu yi mu yëkkati ci ku ko dégg xam ne kàddu yi xol la ndax lu bàyyi koo ci xol ci xol rek lay tàbbi waaye di nuyu nag borom dëkk bi di jaarale ko ci sous préfet mi toog mu jàll ci préfet dem ci gouverneur dem ci ministre de l'intérieur ak ci président de la république waaye di nuyu Serigne Ibrahima. Aydara Cheikh Ibrahim Aydara mi nga xam ne moo yore kàddu mbooleem lislaam ji fi daje tañ bokk ak ñoom benn pas-pas mu yore seen kàddu ci kàddu yi nga xam ne wax dëgg yàlla doomi soxna la jàngal nañ ko yar nañ ko waaye yee nañ ko yàlla yàlla nangu say liggéey te barkeel say kàddu di nuyu talibé yi ak di len sant samay wax lima ci jital alhamdullilah rabbil alamin moy ab liggéey bu ko yàlla nango day yomba xam soxna may muuna mom serigne Touba daan wax ni laylatul xadar ji may wote yàlla nangu nako ndax liggéey bu yàlla nangu yomb na xam abbe mi jóg jël kàddu da ñëk wax ne doomu kuppantum la di do ab sénégalais soog di africain soog a nekk nit ku ñuul di doomu aadama samam xel dem ci bi Serigne tubaab bëggee lii bëgg lislaam bëgg am réewam bëgg ab deram doon na joxoñ tubaab yi naan leen walaysa yujibu sawaadul jismi safahatal fata wa suul fahmi bu leen ma jàppe der bu ñuul bi ba du ngeen faf sama maqama mi ak may gi yàlla def ci man ngeen yóbbu ko ci mag ña ba man maa jariñoo is rubbama uri fatan mu aqara maa xaaba an man qabluhu wa asura fal fadlu xad yabda'u amaama al wabl wa lil wabl fal fadlu lil wabl la lil talli serigne touba biko gouvernement français atte fi ci Sénégal ngir fay l'islam niti lislaam yépp boole seen kóolu tef teg ko ci loxol Cheikh Ahmed Bamba na ko doy nga ñu dama liggéey li lislaam ñu toog fi ñaanal la mu wax ne sëriñ Moussa Ka nettali ko Bamba na may nama dalub lislaam sëf leen ma jóor leen ma danaa ko jaamu jël engagement li xidmatil muxtaari fi sahri safar ba ñu taxawee Mayomba barki démb ba ñuy dem Gabon ci liberville biñu jakarlo ak camp bi église bi nga xamné labbe bi doon toxal sëñ Touba ka àtte fofu la nek bi wax tan sëriñ Touba nako buma bu yow da nga xamné man ëmbaluma la ñu lu ñaaw yermane rek la la ëmbal waxal bopam ne zimam waxal bopam ne ya malikal mulki ya man jallan khawadin irham jami wara yàlla lo ma sa bind nang ko yërëm tay ab abbe mo taxaw fi ab abbe moo taxaw fii génn ci jàngu bi di nit ku ñuul di sénégalais dëkk Kaffrine di teeru ndamul sëñ Touba ginnaaw bu mu jógee ci géej gi ñibbisiwaat fii te wax lu dëgg ci xolam wax na dem mbégte la ci sama xol yamut cootu de ñeenti at ci karawaan bi ku bokk ci jàngu bi tudd Léopold Tamba di liggéey wal fajiri ànd ak ñun di couvrir karawaan bi di bind ay message ci Cheikh Ahmed Bamba di séré ci l'islam lo xamanteni bi ci organe presse la nek te bokk ci jamm bi lolou mo taxone seigne Touba dem ci géej ma wax ne yéen wa Kosaanaar seigne Touba liko bolé ak touba bi da touti te touba bi def ci erreur seigne Touba yàlla da koo wàcce jamono. ne ko li ma la def mooy dama laa def ngay yërmande nit ñi ngir ñu xettali ko sëñ Tuubaa am yéene yi ci bëgg nit ñëpp jariñu kenn du des tubaab bi ñëw fas yéene jariñoo nit ñi te du leen jariñ sëñ Tuubaa bëgg nit ñi jariñu tubaab bi bëgg a jariñoo nit ñi ñu féewaloo njàng li mi rek la sëñ Tuubaa doon jàngale bëgg nit ku ñuul jariñoo boppam tubaab bi bëgg jariñoo nit ku ñuul sëñ Tuubaa na ko du fi amee mbooleem nit yàlla yi fi mas a ñëw la ko tàmbalee ca Maba Joxu Cheikh Omar Foutiyou taal say ñoom ñépp ba ci Cheikh kenn ku ci nekk taxawal nga fii ngir taxawal lislaam daj ci lu ne tubaab bi yànd ak pexem yu bon ba jële la fi Serigne Touba na leen ña ngeen njëkk a da ngeen leen a yàq man mi ngeen mujj a léewtool su ngeen ma njëkkee woon dut leen léewtoo ko Serigne ñu ne ko ñi jiitu ñoo la sut fop gën laa gudd fan ëpp la ndax yow moto 45 kilos te ñoo la ëpp mbooloo te ñoo la dàqoon a bañ Serigne Touba ne leen lesa lu ngeen may defal ñu ne ko sunub xeex may nañ la nga ànd ak fukki nit ak ñett ñu ànd ak yow génn réew mi kenn du la dimbale ñu dem ci réew moo xam ne France dëkku fa Sénégal dëkku fa muy Gabon Serigne Touba ne leen fukk ak ñett yi ngeen ma defal mayaat naa leen ko du ma ci ànd ak kenn ñu ne ko koy àndal mu ne rafiqi kitaabullahi téereb yàlla bii rek laay ànd ñu ne ko doy na la mu ne wal Moustapha nabi sama sang bi képp laay yóbbaale moo tax sang bi bi wax ci eh, eh, salaatu fatiha ak di wax ci salaatu ala nabi Serigne Touba dafa am salaatu sitta bi mati sitta taatihi ba tamaati saa yi juróom benn weer yi dama koy julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam hmm. yeneen juróom benn juróom benn weer ma di ko tagg sama sang ba nabiyul Moustapha sallallahu alayhi wa sallam sama fukki weer ak ñaar jeex ñu ne ko lu la tax a mu ne saa nafhin bila dararin njariñ lu àndut ak lor danaa dem non violence duma lor nit duma lor gunóor duma lor bàyyi ma duma lor kenn Serigne Touba dem Mayomba cinq ans ci Mayomba il biñ ko teg ndox bant ndox bant basan gu tàlli sax xaju fa Serigne Touba def fa juróomi at yoo xamante ba bi xamut ci lu muy lekk xamut ci lu muy naan dara mu dee rek lañ bëgg Serigne Touba neena na benn bis kep la ma sa fàttaliku te li ko waral mooy xasida guma ma taalif ca ba ma fay soga a laa ko taalif ma yamaat ci mbind ma xalaat kañ laa ko taalif na ah kon kat barab bi lee ma yàgg fi ndax xasida gi yàgg naa ko taalif yàlla na ko da ngay xalaataat leneen lu dut man tey laa lay teg am natt nee na ay melentaan la teg ci sama yaram bi yoo xam ne toñ la nepp cuujub cuujub sànq la cuujub ginaar ñu di ma matt ba sama yaram wépp def ay neewa yàlla na Seydina Jibril xoolal ma xolub Ahmadou Bamba ba ba xam yëg na ca mat mat ba wala mën la cay yëg nee na bi mu dikkee fekk may sant yàlla ci xam gi mu xam ne maa def jaamam tooñ ko mu teg ma am nat kooku fa mu teg ngeen di mbindéef sallallahu alayhi wa sallam tegu fi kenn daana wax ne neexoon ma seen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy dox tànkub neen ak dégg na ca suuf mu war caa dal teg tànk ba ma jiital sama lex bi teg ko ca yonent bi teg teg tànkam ci sama bopp ba dégg jam ca ba génne lax ba ca des moo xam ne moom rek laa bëgg mahat mahabbati al muxtaara sayidina hubbil maqaaniya al ahlina wal walada dammi wa ahli wa awlaadi fidaau lahu habdan xadiman lahu muskaana li sanada kooku noonu la bëggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko lu tax nga bëgg ko àjjana wala bëgg daraja wala ragal sawara mu ne dahaani ila mati nabi hubbu saatihi bëgguma ko ngir benn intérêt jëmm ji rek laa bëgg kooku foofu la tegoon ngeen ji sëriñ tubaa noppi ak tubaab bi tubaab bi wóorul ko boppam na def na erreur di gëm ak sëñ tubaa tooñ nañ ko sëñ bi bu amutoon kii du taxaw fii seere sëñ tubaab bu waxutoon la mu wax wallahi alazim abbe du taxaw fii di ko seere yàlla def ko nan tubaab yi noppi nañ ci yow ginnaaw bu ñu wutee fukki nit ak ñett boole la ak moom ci genn fajar bisub talaata nañ la rey ñu takk sañ tubaa ci bant ca montagne sent woo fukki officier ak ñaar ak benn capitaine ku ne ñu jox la fetal na la na dal cinq heures ñu woo gabon gépp na leen kaay teew yàlla yebal Seydina Jibril mu ànd ak yonent yàlla Muhammad ak waa ahlu badar ne ko gars yi danañ xam ne man maa waxloon sama boppam ne maa ànd ak yéen maa wàcc diine inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu la haafisun téere bii nga def sa àndandoo man yàlla maa ko wàcce ca maa koy maa koy wattu fii du fi des de sa bakkan maa ko garanté سيدنا توبا بندل بوبم وهاب للوهاب في الذلاب ما يخجل الحسرة والذلاب فوكا نيات يو ياك سيني بخي يالا ماينا مولو جن كاتيال تلاتة يالا نكو توبا بي نوبي نان تيو جاخل نان لي دي لو سنغال لغي لو بغ من نيو فوب بنو اسرائيل جيب داف كو ني سي طالبي ني فوب سين كريين لين بيندون تي ادنا ييب رفاتل لكو سيدنا توبا ديديت سلمت من الاحداء ترا مع التجا يالا نينا موتشي نا سي ساماي نون damay delu wat samam rew dama lay wax lamay fagul sama waa rew waxuko julit ba waxuko ñul ka waxut tidian ba waxut khadir ba limay yobale yóbbaale sëri ca yow yàlla fi nga koy nangoo ma sa dem mu ne ko lu def sëri ca mu ne ko ijhal rujuhi ila khawmi saadatana wal takfina yawma jamhil xalqi nirana sama delu gi ma mucc ci noni te musaluñ ma yaa musal su may dugg samam rew kuma fa fek na nga dem aljana ci kenn dem sa wara tubaab yi wëlbatiku wax jàkkaarloo la Serigne Touba nako dañ la toñon mu ne xafawtu jéggal na len du ma tooñ kenn bakkar man kenn du dem sa wara ñu ne la Ahmadou Bamba la ko topp moo nga dem sa wara xafawtu anil ahda'i turran li wajhi man nafahum li khayri sarmadan lastu at faw mais nan Cheikhna ahmadou khadim kep mom lañ massa toñ mu jekk ko ab noonam yàlla jox ko paka nako bakkar du la ci fek mu nako ne ko baal naa ko loolu moo tax sëriñ tuba cheikh sidi al muxtaar tànn karawaan bi mu ñor ko mu di dox lu ñeenti at ngir bëgg lan jàppanteb jullit yi al nit ñi alquran di ñu ko jàngal bu yàgg yonent bi soññee ci lu ne nit ñu baax li fi ñëw ñépp ku ne ci lu de waaye ñu dem ba jamono yi jóg ngir tisaare islam ngay dégg xeex ba ca yaman di dégg xeex ba faneen ak faneen ñan ñoy xex ay julit ñoo leen xex ñoy xex ñu leen ruuxale ñu contre l'islam bokk yi nañu xamaat nañu bokk xibla nañu xamaat nañu bokk téréb yàlla bi no xamaat nañu bokk ab yonent ñi seenub yonent di yonent yàlla isa neena mbollem témer ak témer junne ak ñaar fukk ak ñent yi yàlla yónni ñu di ay yonent li tax yonent yàlla isa upp ci maqama gën gam ci gëna jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ab taal ku lu ko gëna jege gën la yëg tangay wa kero bam mu feeñee nit ñi nara dox seen digënté yonent bi di wax daf ne daf ne ñun day la nu farriqu bayna ahadin min rusulihi wa khalo ñom ñep samihna wa atahna yonent bi nee li yàlla yónni ñu di ay yonent mu jox leen ay daraja duma ci weddi kenn ku ne ku nekk dana dégg la nga waxta dana ko top ñun lool lañ nappé ci yonent bi lool lañ nappé ci Seyxuna Ahmadul khadim kon yéen mur yi nekk ko sana سري مود لي بيني اكسي اي رونخا نيم سوتي كو والله والله لا سيني توبا رك لا كيكو يوني موي سيني توبا لي مو وار نيب وايي امنا لو خامنا فردو كفايه لا كوكو ديف ديفالا كو مبولوما جار نان نيبي امام جبل جبل درامي تولو لا سي جوروم نيت فوكيا دي مخدم الشيخ سيدي حازم مالك ام تاتم الشيخ سيدي مختار لا كو تودي jaar nañ Koungheul imam Moustapha Diop di muxaddamu Cheikh Sidi Haji Malick doomam Cheikh Ahmed Bamba la ko tuddee loolu bokk yi loolu la mag ñi ànde woon bokk yi ñoo bokk diine ji de ñoo bokk pas-pas bi kuy faatu ba dem tijaan bi day ñaan xaadir bi di ñaan laayeen bi di ñaan sazali bi di ñaan abbe bi di ñaan ngir yàlla yërëm la bokk kenn du bokk lu mel noonu di ko kon sëriñ bi nee xolam sedd Euh, monsieur le préfet sous préfet darajey préfet nga yor darajey président de la république nga yor ñoo ngi lay jox daraje ji la yàlla jox Serigne Touba ci am njàngaleem nee na ku yàlla jay jay ko kum jox ak wilaaya nangul ko ko kum maandu ci moom maandul ci moom doomu aadama ju def lii du loru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na julli dëgg du lor mbokkum jullitam ci aw làmmiñam du ko lor ci ay jëfam Cheikh Ahmed Tidiane Akim ba noonu na nit ñi dañoo gaaw ci attan na ko te attan na ko mën naa yóbbu bàkkaar ndax xamoo ca dara buñ na ko waxee bul ne àttan na ko neel xawma ca dara kon bokki taalibe yi sëriñ Modou nee na xolam sedd na xelam dal na yaakaaram dolliku na te lii ñu ko wax dana ko jot li Serigne Touba Cheikh Sidi El Mokhtar incha allahu rabbi jigéen ñi jigéen ñi sëriñ bi nee na xolam sedd na ci yéen jigéen ñi sëriñ bi nee na xolam sedd na ci yéen bu baax a baax a baax a baax ndax wóor na ko ne ay fan a ngi nii noppaluwu leen guddi noppaluwu leen bëccëg ngir séentoo te séentoo daa métti daamit kenn ku ne bañ mu yàqu. kenn ku ne bëgg bu agsi am ndam man nag jàppoon naa ne karawaan bi Kaffrine mooy jël premier waaye ndakate boobu dañoo agsi gut Kousanaar Allahu akbar naa ne Kaffrine mooy jël premier waaye dañoo agsi gut Kousanaar li ma gis fii ci mobilisation ci Kousanaar yàlla xam na ne gisuma ko feneen ci mbooloo ak dakku ak benno waaye sëriñ moodu daa wax ne bala may jàllale kàddu gi Serigne Touba li mu ànde woon ak ñépp mooy dugg nañ Fuuta ba génn ko seeti bokki Serigne Touba dugg jal xaaral mu mu ñëw li nga solo baax na ginnaaw bu ñu santee jigéen ñi seen taxawaay ak seenu coono sëriñ bi nee na xolam sedd na ci yéen mi ngi leen di ñaan yàlla leen yàlla yége ci maqaamam soxna Mariama Bousso di soxna jaaratullahi Mariama ñi ci nekk ci ay kër borom këram di sëy yàlla fa am doom yu gën borom kër te ëppale ko ñaawaat ay borom kër it yàlla nañ ko yàlla leen jox donc nga yi fi ne di yàlla leen yàlla jox luñ am ñi bëgg a génn réew mi yàlla leen ko yàlla yombalal ñi génn réew mi yàlla ñibbisi sëriñ Modou nag daa wax mi ngi ñaan ñu jokkalante li muy bëgg a wax ba ñu demee kër alaaji Moustapha bi gis mu gis mu teral sëñ Touba dafa wax ne nañ fayal sëñ Touba bor bi dafa mas di doon ab dëkk ña fa nekkoon di ay doomi may ma ñoom ñëpp ñu ma a amassé doo ñëw di way sëñ Touba ak di seen njiit mu ñëw mu ne ko yaay diw mu ne ko waaw mu ne ko yaay jiite ñii mu ne ko waaw. mu ne ko yàlla bu ko wax lu baax mu fay la daal na gees maam Cheikh Anta ne ko waxal mbooloo mi nañ ma ko teralal nee na ñu di ko jóor ay alal ba mujj yàgg mu fab ñaari loxoom yëkkati ko ne Ahmadou Bamba lu baax laa la doon waxal nga bëgg maa teral bañ rey ma teg ma cee dimbale bàyyi suñ mbokki tarixa yii ca imam Ibrahim yëkkati fi kàddu sëriñ bi nee na taraangay sëriñ Touba di jëm ci ñoom na ko fekk fii mu jox leen ko taraangay sëriñ Touba di jëm ci moom na ko fekk fii ngeen jokkalante ko mu teral leen ko ngir jëmmi lislaam teral leen ko ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa a tedd ñu di julli seeti Muhammad maa ngi nuyu chef délégation caravane jóge Touba ci ndigal sëriñ bi di nuyoo kilifa diine yi fi teew di nuyu kilifa aada yi di nuyu jigéen ñi di gën a ñaax commission d'organisation bi gis nañ seen taxawaay seen liggéey rafet na caravane bi lu am solo la ndax dana tax ñu nga xam ne ñu ngi jàng njàng mu kawe ñu mën a xam kuy Serigne Touba. gën a seen examen seen thèse yi dana tax xale yu nga xam ne ñu ngi soog a judd ñu xam kuy sëriñ Touba ndax sëñ bu jaar léegi si ku wutu wax jum fi wax Serigne Touba ñëpp dëgg nañ ko xale yaa ngi fii dinañ ko dëgg dana leen tax xam kuy sëriñ Touba Serigne Touba ay mbiram dañ ko fi wax fukki fan téeméeri fan junne fan du jeex ndax ku nga xam ne. dafa dogg ci àddina jël mbirëm jox yàlla yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo liggéeyal boppam liggéeyal yàlla liggéeyal ñun ñi askan bi liggéeyal boppam Sëriñ Tuubaa moo ko def tax ndax képp ku nga xam ne yaa ngi jëfee Sëriñ Tuubaa lu mu bind da nga koy gis résultat nu mu gën a gaawee kon Sëriñ Tuubaa ay mbiram kenn xamul fu mu toll mas mas naa jox naa nag sama baay nee na ma man ko lan mooy différence Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Sidi Malick ndax ñoom laa xamoon fekk maa ngi nekkoon tout le temps ne ma ñoom ku nekk ay wëliw domaine ku nekk domaine am la yor man ko lu leen wutale mu ne ma Serigne Touba ginnaaw yonent Muhammad sallallahu kenn du jaamuwaat yàlla mu dab man ko Cheikh Sidi Malick mooy kan mi ne ma addina bi musul am ko nga xam ne dana xam yonent bi mu mu muy moyam ak si kii alañ maa Sénégal yàlla daf ñu may dama koy wax yàlla daf ñu may ay kilifa diine ñu nga xam ne ñu mucc ayib lañ kon nag ñu ngi ñaanal Serigne Touba nga xam ne moo fi nekk yàlla may ko yore wérle may ko taal may ko gudd fan ak wér yaram mu nekk suñu kanam lu yàgg yàgg yàgg di ñaanal ñu nga xam ne tey ñoo bokk ci caravane bi Serigne Modou ku ma xam na ndax yendu naa këram xamna fu mu tollu ci serigne bi kon ni ñu ko waxee bu ko serigne bi yëkkatee mu jité caravane daf ko ko doy la mat nako te atal nako kon mangkoi ngi koy ñaanal li nga xamne mu ko sumba na commencé nako ko similaire rahmaan na ko ci atum dara bil alamin di len di ñaanal ngeen ñaanal ñu ndax li dama ko wax kusana kusana arrondissement la mais ku fi ñew da ngay fonni département la loolu yàllaa leen ko baaxee ndax am na kilifa diine yu nga xam ne représentant xalif yu nga xam ne mooy baay Modou Baye Ousmane ay baag maa li fi nekk tey lu nga xam ne Koussaar na am nañ ko si taranga ñoo ko fi indi ak sëriñ kii nu tuddee si ku représenté Tijaan yi mooy sëriñ euh, ak Assane Si donc ñoom ñëpp dañoo jël seen effort def ko benn dialogue islamo chrétien bu nga xam ne ñu ngi koy wax Koussaar na moom fii ñun waxatuñu ko ndax lu fi xew gis ngeen ko labbe lu xew yëg na conflit yu xew yu nga xam ne am dégg na dayoo bu labbe toogee kilifa diine toog ñoo ko ñoo koy liggéey ba mat fii vraiment ñu ngi sant yàlla ci dialogue islamo-chrétien lu déggu la lu wér la xam ne mu ngi kusaanaar kon nag ñu ngi siy sant yàlla di ci gërëm yonent Muhammad sallallahu gërëm kilifa diine yu nga xam ne tey lépp lu ñu am Sénégal Sénégal amul or ñu ngi ko soog a commencé di ko exploiter Sénégal amul pétrole Sénégal amul dara mais Sénégal am na trésor bu nga xam ne c'est inépuisable muy suñu kilifa diine yi def nañ fi ñaan yu nga xam ne ala kulli alim ku ñu ku ñu gis da ñuy teg fu nga xam ne ak bu ñu fa loolu yëpp vraiment am nañ trésor bu nga xam ne bu ko nit ñi amoon ñu am ñoo ñoo ñoo raw ñu léegi maa ngi ñaan sakku si président de la république ndax def na fi benn programme bu nga xam ne mooy le PSE Sénégal émergent autosuffisance alimentaire autosuffisance alimentaire ku koy wax Sëriñ Tuubaa moo ko bu commencé kër bu tubaab bi ñëwee andi coton andi gerte mu daal dajale taalibe dem ci àll bi commencé di béy lu ñuy dundee ndax nee na boo bu la nit bu la nit boo boo mënal de sa bopp boo mënal dem sa bopp nit ñi mën nit ki def lay noot nooteel la doon bay te nooteel boobu ci lañ nekk donc bu président Macky Sall ñëwee ne déet il faut que ñu delluwaat ginnaaw ñu béy ñu mën a dundal yor suñu bopp. moom si daan am daal nga xam ne Sëriñ Tuubaa moo ko fi njëkk a indi vraiment loolu war nañu ko sant yàlla sant ko gërëm ñu jàppale ko xam naa Touba ndax def naa fa juróom benn juróomi at yu mat sëkk ñoom ñu ngi ci bu yàgg du tey boo demee Anambé seen tool yaa ngi fa du jeex Casamance boo demee Fouta côté Matam seen tool yaa ngi fa du jeex seen taalibe yaa ngi fa foo dem ay hectare hectare la ñuy béy kenn xamul lu ñuy am ci mboq ñaata la kenn xamul lu ñu am si gerte ñaata la kenn xamul lu ñu am si dugub ñaata kon je pense que tey bu ñu royee ñi nga xam ne ñoo nekk suñu diggante ak yàlla mooy suñu sëriñ si président bi lu mu bëgg dina yàlla dina ko mën def kon maa ngi leen di ñaan sëñ Modou Youm jiite délégation ak jëpp jullit yi nga xam ne ñaa ngi fi ak abe ngeen ñaanal président de la ndax borom xam-xam ne ne borom njiitu réew bu amee jamoo ñëpp am jàmm bu amee naxar ñëpp am jàmm naxar kon nañ ko ñaanal jàmm programme bu nga xam ne teg na ko muy Sénégal émergent ñu jàppale ko ci ndax programme bi mën a antu mu ngi def lu ko mën mais nag mënul nekk ci tool yi di béy mënul nekk ci faro yi di béy fu machine fu mu dëgg machine bu baax andi na ko fu mu dëgg jumtukaay baax andi na ko programme yaa ngi taxaw di jàppale béykat yi mais bu askan bi jógulee comme Mauritanie ni ñu koy def takk seen digg comme Tidiane ni ñu koy def takk seen digg comme Laye ni ñu koy def. takk seen digg comme ñaseen ni ñu ko def takk seen digg bay du dem ñooñu ñu ngi bay seen waar bu yàgg-yàgg du tey te musuñu ko bay moo Modou mii dégg naa sax am na ay taalib yu nga xam ne ñu ngi si si si diwaan Kousanaar te ku ma ko wax wax na ma lu wër ndax ko xam na donc je pense que ñooñu bu ñu bayee bu ñu déddoo àddina ñii dañuy jox seen bopp yàlla fu nekk fu àll fu àll métti ñi nga fa ak seen taalibe kon ñun ñu nga xam ne ay jaam yàlla kese lañ war nañu roy suñu sëriñ si ndax suñu Sénégal mën a nag ndax kenn jóge France kenn jóge États-Unis kenn jóge Allemagne ñoo développé ñu ñoo war a mën a développé suñu bopp kon maa ngi sakku ñaan ñu ñaanal président de la République lu nga xam ne mu ko taxawee yàlla def ko ñaanal presse bu nga xam ne comme sëñ bi nu ko waxee ku dëgg bëccëg ñu ngi ànd ak caravane bi depuis Gabon dem nañ maay ba fu Gabon fu si jaarale suñu ba dem daal jaarale ju ñu ko ñu ko seetaante leen keroog ngi ànd ak ñoom te comme ni ma ko waxee am na ay public seen biir am na ay catholique seen biir mais képp ku nga xam ne yaa ngi def yaa ngi béy sa tool si waa loolu mu mënee addina noonu la bindoo ku nekk dafa am ku nga xam ne moom nga war a yëngu ku nekk na yëngu fu mu war a yëngu nu mu nu si war a yëngoo kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp islam bi tusaanaat am nañ ci mbégte bu ndax taali taalibi sëriñ Modou Kara yi fi nekk musuñu def dara lu ñu yëgul man maa def accord autorisation yi ñu fiy def lépp te guddi gu nekk guddi ajuma bu nekk danaa dëgg ñu ay jàng te bu ñu jàngee bu guddi gi xaajee ñu xam ne kilifa yi tëdd nañu dal arrêté seen ni yi loolu vraiment ñun ñu ngi si sant di leen gërëm ci turu sous moo fi waroon a teew tey mais xam ngeen admission fu mu toll nii fin fin d'année bi day bëri ay programme mais moom mii moo fi a teew moo fi moo pour kaddu bi bu may wax fekkee am naa ci njuumte la mais ni ma ko waxee gënoon na rafet lii kon ñu ngi sant jigéen ñi suñu yaay comme sëñ bi ni mu ko waxee ndax lépp lu jag si àddina bi rek jigéen ñi la kon ngeen ñaanal leen ñoom it surtout seen jaboot yàlla barkeel leen ngeen ñaanal xale góor itam gis ngeen seen taxawaay depuis ngeen dañ ne karawaan dana ñëw keroog lañ ko yëg ba tey nelawuñu yéen tooguñu amuñu amuñu benn yitte lu dul karamaan bi yegsi fee jàmm ñun ngeen fi ak jàmm dem ak jàmm kon maa ngi nuyu ñëpp ñu nga xam ne ñoo ne ci karamaan bi rawatina waa Touba waa Tiwaawoon ñu nga xam ne ñëpp ñi fi waa Njaasaan ñëpp ku lim juum di sant di gërëm sëriñ si ndax murit comme nu ma koy déggee parce que bu ma demee dama ne dama laaj dama sëriñ Thierno bu sëriñ Mountakha man ko luy mu ne murit mooy julli naw yegg si mu ne murit mooy jullit kon foog naa fii ñun ñëpp ñu fi tey ay murit lañ ndax ñun ñëpp ay jaam yàlla la yàlla moo ñu so yàlla moo ñu yàlla yàlla lañ am moom lañu bëgg yonent bi moom lañuy roy yonent bi nag dafa am ñu ko fa wutu mooy ñoom Serigne Touba mooy ñoom El Hadj si mooy ñoom Khalifa Ndiassane mooy ñoom Khalifa Baye Niass et cetera donc ñoom ñëpp ñoo fi wutu yonent bi tey kon ñu nga xam ne ñoo fi yonent bi vraiment ñu ngi fii seen ñaan ñoom dañoo làqu rek comme ni ñu koy waxee mais demuñu seen bët ngi si ñun seen ñaan ngi si ñun guddeeg bëccëg ndax benn fu may fu may jeexalee sëriñ sëriñ Baara sëriñ Touba balaa yàlla di ko jël météo mos nañ leen ki taw bi du taw mais bu mu jëlee kàddu gi minimum yàlla woon na ko ndox mu bëri mais atam lu mu taw si nag inondation yi yoon dëgg Dakar inondation yu kaw la fu nekk. ak boobu la inondation yooyu am kon yàlla may na sëriñ si nu nga xam ne mayu ko borom xam-xam yi te tubaab yi borom ay xam-xam yu wér la mais yàlla am na lu mu mën a woon kilifa diina di ko woon borom xam-xam xam-xam tubaab donc euh, vraiment yàlla may nañu lum ñu war a may léegi mbir na ci ñu loxo la nekk ñun ñoo war a takku ñun ñoo war a fagaru ñun ñoo war a liggéey nangoo coono ndax sëñ bi wax na ko léegi. dara ñu ko am si ginnaaw coono Serigne Touba tey bu ñu nettee Serigne Touba dafa nangu coono Serigne Touba bi yëpp ko bi si biir àddina bi pour sànq ko mais foog naa bu ñu moytoon ñoo ñoo sànq seen bopp donc dafa nangoo coono nangoo nangu ay jafe-jafe nangu jaamu yàlla jaamu yàlla rek amul ko jënd métti loolu yëpp def na ko ba nga xam ne dindi àddinam sama bàyyi nee ma si biir ba mu ak loxo. mu musul laal xaalis ak loxo lu ñu wax mi ne yàlla Serigne Touba sama bàyyi ne na ma fu mu doon jaamu yàlla si Touba seetaan daf ko doon daf ko doon daf ko doon feeñu mais teggi ba ni si Serigne Touba daf ko doon teggi dugg si biir ñax mi dugg si xaaxaam dem fu muy fu muy fu muy kon bu ñu yàlla mayee ku mag nii bu ñu yàlla ku toll nii war nañ ko sante yàlla sante ko suñu yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la Serigne Touba lépp lu mu bind yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jiite kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ñoo ngeen ci jàmm yàlla ngeen ci jàmm Koussanar nag yàlla mel na leen lu jafe dama koy wax yàlla mel na leen jafe vraiment war nañoo góorgóorlu jàppante surtout xol yi doon benn ndax dara mënul ànd te ginnaaw jàppante kilifa diine yi réeroo ñu réeroo ñu fenn muy labbe yi muy jullit yi réeroo ñu fenn kon ñun ñu nga xam ne si ñoom nañu yaakaar ci ñoom nañuy roy waruñoo réeru ci dara bu ñu duggee suñu Sénégal jëm kanam kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ñun ñi ñëpp ñu ñëw mooy représentant yi fi ñu autorité locale yi yi fi ñëw vraiment dégg nañ seen taxawaay ci mbir bi yàlla delloo leen lu nga xam ne def nañ ko fi mu gën a gërëm ngeen ñaanal leen ndax ay communes yu bees lañ ñu benn moyen mais yàlla am na ko ngeen ñaan ñaanal leen yàlla mu am lépp mën lépp yal na leen yàlla man loo te def loolu xam ne bëgg nañ ko si askan bi da askan bi rek moo leen tax a ñor gis nañ ni ñu taxaw si askan bi te askan boobu moo fi teew tey ñu ngi leen di jàppale si lépp lu ñu mën mais seen mooy demeewul noonu mais boo leen ci ñaanee yàlla dina ko nangu te naa caravane bi tey Serigne Touba nga xam ne moo ko tax a jóg mi ngi fi teew ak nit ñi mënuñu ko gis mais mu fi teew Cheikh Maté mi nga xam ne tey mi ngi Touba moom mi moom mii mu ngi fi teew lépp lu ñu fi wax mi ngi dugg si noppam kon ñu ñaanal leen yàlla yàggal leen fi yàlla may leen wér may leen tal comme ni ko Baye Abdoulahad mosoon na wax sëñ Abdoulahad am na ko ko mos a ñaan alal mi ne ko na nga ñaan xéewal ndax si lépp la nekk si xéewal si lépp la nekk kon nañ ñaan xéewal yàlla may ñu xéewal yàlla may ñu naataange wasalaam